affaire Ousmane Sonko man affaire Ousmane Sonko sama soutien bi ma koy def duma ma dara lu ma dugal dugg Pastef wala mooy politique man mënuma politik mais su may ak appuyer nit dama koy appuyer mu leer nañi damay ne Ousmane Sonko ñetti ñere ñoo ko contre yàlla moo ko may. ñetti nite ko contre ñi nga xam ne dañoo mos mu neex ñu ne bëgguñoo bàyyi. ñooñu contre nañu Sonko am nañ ci droit. Mm-hmm. mais nañ ko xeexee ci ci terrain politique bi. ku war a bokk bàyyi la. ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne bëgguñu changement yi muy insinuer parce que am na ñoo xam ne ci kàppale la ñuy dund chaque jour. ci lañ am liggéey ay millionnaire tabax ay kër. am na ñoo xam ne ci bureau yi di def ay corruption def loolu la ñuy dundee tappale yooyu da koy dindi ak ñi xam ne ay tubaab la ñu di tappale ci réew mi jël marché public yi def lu leen neex mu ñëw ne da koy dindi ñooñu ay noonam lañ ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne dañoo soxor na ma yàlla baal kaa ñu soxor mooy créé nañ xëy na ay parti